ñëwee fekk ni euh, y a des détenus yi nga xam euh, jërëjëf ah jërëjëf euh, maa ngi gërëm ñëpp di wax ni rek li ñu fi indi sentiment bi ma ci am mooy fekk si sunu ay frères ak sœurs yoo xam ne dañu nekkoon dans les liens de la détention ñenn ñi ba léegi nii seen i cas attewuñu ko woon ñu nekk donc en détention bu nga xamante ni kenn xamul woon lan moo leen fi téye ñëpp ci même chef d'inculpation ñii. ñu naan appel à insurrection ñii ñu naan euh, euh, euh, naka lañ koy waxee financement occulte ñii ñu naan financement terroriste comme man mii nga xamante ni yàlla dogal na ci weeru septembre lañ ma bàyyi ñu boole woon ma ci loolu. kon tey jii bu ma fiy ñëw di leen seet di leen jël si dafa am sentiment bu fort a fort a fort a bu ma yëg mooy sentiment boo xam ni dama naan dëgg jib na tey tey la bésu dëgg ndax dafay yàgg rek waaye guddi guddi sunu kër la ñuy fanaan. ndax tey tey tey mooy bés bi nga xam ne yàlla jox nañu dëgg te enfin le la la vérité le droit a été prononcé nee nañu élection dina am muy démb tey ñu ne euh, démb ak tey képp koo xam ne détenu politique nga dinañ la bàyyi kon dama naan lu waay mu ñoon mu metti rek tey sa xol sedd na yëgu ma ni benn kaan laay doxee yëgu ma ni coono gi ma dund ba léegi nii barki démb laa jóge bitim réew doon faju jiwaat encore yëguma ko ndax mbégut mbégte gi ma am nii tey mbégte bi nag liñ ciy xaar lenn rek la mooy ñëpp génn sunu président Ousmane Sonko ak sunu ba Bassirou Diomaye fay ñu am seen liberté liberté boo xam ne de mouvoir mais liberté de d'accomplir li nga xam ne mooy seen mission comme nag nee nañu euh, euh, élection am na ah nañu xaar Diomaye candidat nañu xaar Diomaye ndax Diomaye mooy Sonko Diomaye mooy may Maymuna Sonko mooy na kon lii ma ñoo taxawee fii seen taxawaay laa fi taxawee te képp koo xam ne teye woon nañ la ci biir kaso bi ak li ñu nettali démb ak tey ci métit boo xamante ne dund nañ ko man mi tey jii sama tànk bi dama ko naroon a ñàkk waaye yàlla dogal na ci barkeem ak mbaaxam ak yërmandeem ak xam dëggu gi ñuy xeex ci xeex bi sunu borom suturaal na ma ba maa ngi soox de waaye alhamdulilahi rabil alamin donc c'est pour dire que ñi nekkoon en détention yëpp askan wi taxoon ñu def leen ko ñii parce que dañu nekkoon ci biir xeex bi ñii parce que dañ cee tombé parce que am na ñoo xam ne bokkuñu ci woon sax Sénégal jar na ko Sénégal enfin mën na cee am liberté am kon nag li may wax rek lenn la le combat continue du combat wu xeer du combat wu fital du combat boo xam ne ay jaasi la comme nervi ni ñuy def mais combat boo xam ne principe la ak jàmm ak salaam ak tawféex ndax Sénégal réew jàmm la Sénégal nekk na réew boo xam ne foog naa ni sunu maam yi liñ fi liggéey jàmm rek moo fiy am te ku fi bëgg jëlee jàmm doo ko fekkee kon nag maa ngi exhorter le pouvoir maa ngi exhorter euh, le président Macky sàll ci taxawaayam bii mu am muy taxawaay bi ñu doon xaar ci moom ndax bu ko tàmbali woon lii yëpp du am Macky sàll bu tàmbalee woon nii xeex du fi am ay dee du am wala ñi nga xamante ne tey jii dañ leen a tëj ku mel ni man bokkoon ci ndax bañ may tëj sama biir kër lañ ma fekk ne ma dangaa déposé xaalis ñu gis ne dangay ngay financé te la ñu doon wax sama doom laa yónnee ne ko déposé ma xaalis ma def ma dugal xaalis ci woyofal bi kon loolu teguwul fenn te ñeneen ak ñeneen ñi mel ni man loolu lañu leen jàppee waaye nag amul lu dul jeex ci àdduna inna allaha ma sabirin yàlla la ñu àndal yàlla la ñuy xeexal ñu ne ma danga nga ne nag da ngay jihaat ma ne leen jihaatuma jihaat mooy pas jël jaasi di xeex waaye liggéeyal yàlla te ñu li ñuy liggéey pour Sénégal yàlla moo tax ñu di ko liggéey kon yal nañu yàlla may ndam yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla génnee ñi nekk ci diggante mais ñi nga xam ne aussi surtout xeex bii rek dugalu leen fa waaye njuumte dugal na leen fa wala ñu tay ko wala ñu bañ ko tey yal na leen yàlla taxawu sàmm leen prisonniers yëpp maa ngi leen di ñaanal tey bésu xol bu diis la ci man waaye xolu sant yàlla alhamdulilahi rabil alamin lan ngay tontu ñi nga xam ne nag jàppoon nañu ni prisonnier politique amul tey ji ñu xëy ni ñu bëre dañ lay wax ni xamoo xawma lan moo tax plus de mille cinq cent détenus politiques la ñu wax ñun mhm. maa ngi nii ci laa bokk te maire laa ak cër bi maire war a am ci réew ak dayo bi maire war a am ci réew dañ maa jël si teg ma ci ci ci violon bi di ma wa dugal kaaf di wàcce ba sama tànk am ci problème dañu mujj bi ñu may dugal ci bloc di ma opéré ci lañ ma ni am nga liberté provisoire ndax boobu ragal nañu ma dee seen loxo ba yàlla dogal ma dem Amérique bi ma ñibbisee maa ngi waat nii Belgique laa jógee ndax lan dama bëgg faj sama yaram te loolu tey ku ma ko teg lu dul kii nekk ci nguur gi ndax lan bëgg am dëgg te dëgg gi yàlla joxu ko ko ñaari at ñaari mandat lañ ko mayoon mandat yi jeex na ñu ne ko demal waroon naa dem maa ngi ko koy ñaan ba pare di ko nag félicité ci courage bi mu commencé di wane xamuñu nag lan la waaye ndegam wane na ni pare na pour libérer waaye pare na pour que élection yi am nañu xool date bu gën a gaaw avant le 2 avril ñu def élection présidentielle ki nga xam ni moom la askan wi tànn jël réew mi ñuy ñaan mu doon le candidat Bassirou Diomaye fay yàlla na ko suñu borom def ndax ñun li tax ñuy xeex nii du pour bëgg siiw du pour au contraire dañuy souffrir suba ba ngoon di ñàkk suñu alal di ñàkk suñu wér-gu-yaram di sacrifier suñu famille waaye dañu gëm ni jomaay Ousmane Sonko mënuñu ko am su jomaay toogee dina taxawal li nga xam ne loolu la ñu gisoon ci sonkoo muy yaakaar bi askan wi am lu mu jëriñoo ci li nga xamante ne nii mooy sunu taxawaay ñun dañu bëgg a soppi réew mi bëgguñu xeex ak kenn bëgguñu dundee réew mi dañu bëgg a dundal réew mi jërë ngeen jëf. merci beaucoup. muy lu metti nag ndax bàyyi liggéeyam nekkoon soutien de famille. Hmm? nga jël ko rek ki kidnappé ko noonu jël ko yóbbu ko téye ko nii ba mu neex la nii rek nga daal di xëy rek ne bàyyi nga ko si loo xamante ne kenn xamul lan la amul benn argument amoo dara yow loo mën a wax loo mën a taxaw ne lii la def wala wala euh, lii yoon da koy tere wala nekkul ci dëgg ndax man gisuma si si si ñoom ndax ñun ñëpp ay patriote lañ ñun sunu famille ñun ñëpp ay patriote lañ loolu yàllaa ko def te ci moom moom moom moo ko fa indi ñu ànd ci nag fi yeet nag tamit lool macha allah ndax suñu na ko moom moo ko indi suñu kër moo ñu ko doon wax ñu di ko déglu di ko bàyyi xel di ko reetaan ndax lii mais ba ñu demee ba gis li tax ñu war a mën a topp nit ñun ñëpp dañ ko topp dañu retourné ànd ak moom euh, di ko di ko jàppale ci loolu far tey nag yàlla def natt bi dal ko waaye nag ñu fiyeeti tamit bu baax ndaxte lii jiyaat la képp kuñ ko def bis su tey jii. Oh, nga war a génn mën ngeen demee fële ne la bàyyi ñi si des ñu def xam nga ñu a bu gaaw. waaw ndax lii képp kuñ ko def bisu tey jii tey nga nga war a génn def naa fierté la tey nga ne man maa bokk ak diw wala diw mii suñu famille la bokk moom la ñuy def jëf du mel nii. tey loolu ndam la fii ci Sénégal lii du gàcce de tëj bii ñu leen tëj lii du gàcce ndam rek la. waaw jàpp leen yóbbu jàpp jékki-jékki rek bàyyiwaat tey ci benn arjuba muy lu yéeme. muy lu yéeme ndax dañ leen jàpp si loo xam ne yow xamoo ko ñu xëy rek bàyyi leen bëri pour couvrir l'événement partir là-bas couvrir l'événement mën nañ dem eh, ay ah, waaye ay eh, arrêté les individus gauche droite yéen ñi tamit di jël si wala ngeen accueillir si nit calmement évacué leen tali bi ngeen taxaw calmement pour génn ngeen amoo ñibbi fii maison d'arrêt la quartier populaire duñ nangu ngeen nekk fii di fi tayal sàmma yaakaar naa duñ yéen foofu soyez calme xaar leen ñu ngeen xaar suñu gën a gën ñibbi la presse. d'accord éviter ce qui là. d'accord merci beaucoup il faut éviter ça. ngi woon ci point bu am solo tey ci li nga xam ne tey mooy li leen fi dugaloon jékki-jékki rek xëy bàyyi eh, eh. waaw d'accord maa ngi ñëw seet waaw xëy jàpp xëy xëy rek bàyyi. waaw ñu sant ko yàlla nag bu baax a baax a baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax ndam rek la wax dëgg yàlla man de ndam laa ko gisee am ci nag fierté nag moo tax ngeen ma laajee hésité wu sax pour taxaw taxaw wax moom ndax wax dëgg yàlla dañ ci am fierté ndax taxaw naan man sama rakk bi ma bokkal ndeyax baay ci la bokk loolu ndam la fii ci anamu moom génnagul génnagul moom la ñuy xaar ñu ngi koy xaarandi ñu ngi koy xaar maa léegi nañ dem ci biir kon jéem a daje gaay fay ci ruq a xool ma waaw mën na vingt ans xale bi. yaa ngi yaay mën na waaw léegi bu dugalee bitim réew yaa ngi lay bàyyi waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw

mais liñ leen liñ leen di ñaan nii liñ leen di ñaan ñaan d'abord mooy mooy ngeen fekk ne après ngeen jéem a xool fu ngeen dugg. bala ñuy def fi ay lacrymogène di indi problème dégg ngeen. voilà ñoom policiers yi wax nii léegi dégg ngeen. donc.